question. waaw salaamaaleykum sama gars waaw tey dafa am lu bees lu ñu leen indil lu rëy sax waaw mu suñu premier numéro SSP am benn caméra cassé bu ndaw bu ñu leen bëgg a dugal dañuy yor suñu bébé génn ak moom dem ci mbedd bi xool benn milieu bu ñu ko mën a placé. teg ko xool ban jigéen mooy buñ ko mën a ji ñu ko yaag sànni liir bi ñu xool gars yi nan la ñuy réagir ak soit sama ñaari auditeurs yi tamit bu boobaa pare nan la ñuy ak éléments yi ngeen topp ñu nag ku ko bëgg a seetaan nga ko ci SSP TV lépp di nga ko fa am incha allah. ran gars yi comme ni mu ko waxee rek. muy gaaw waaw. man de dama doon dama doon romb soxna si kaay waa de mais ñoo ko gisandoo dangay taxaw soxna si soxna si nday jooy liir laa fi gis sama kii taxaw ci laa fekk kii de laa fekk ah, laaj leen ko maa ngi koy laaj mais moom nee na dëkk fi xaw ma man kii laa fekkanteel grand kii taxaw nii man dëkkuma fi de dama ko laaj ba xam fii nga dëkk mu ne ma déedéet fii laa ko fekk. yow maa ngi lay laaj ba xam. woo ko woo ko mu ñëw. Ah? waaw woo nga laaj ko ba pare. soxna si man waaw man dama laa laaj mais man xaw man dëkkuma fi.

léegi xam la laaw. yow léegi yow ak kii dañuy ànd ak yéen ñu xool lii biir garde kan moo ko fi sànni. gannaaw fi mais yow da ngay dem yow léegi yow jël ko. yow da ngay dem koy jël jël ko kon. léegi yaa ko sànni. Eh, eh, taxawal ay kii lañ taxawal ay. yaay booy. yaay booy. waaw mais bàyyi ko ñoom ñu lijjanti mën nañ xaw ma. déglu leen yow lii yow lii fi nga dëkk fi nga ko fekk mais ñoom ñoom. déglu yow wala yaa déglu déglu yow déglu bul wax wala da ngay dem bu ñuy dem yow di nga dem. ñun ñëpp dañuy dem. bu ah, ko léegi léegi comme fi ko fekk. comme fi ko fekk waaye xam nga ne bu dee nit la bu ngi jooy noonu. ñun ñëpp xam nañ ko. léegi comme fi ko fekk. waaw léegi da ngay déglu ki ko ñëwoon sax yow yow yow ak témoin bi. man sa ginnaaw la topp ngeen man sa ginnaaw la topp ngeen voilà. ay jël leen ko yéen waaw léegi ngeen koy jël yéen léegi ngeen wax ñu ñun lu ñu def. mais xoolal ko Marie Marie ah mais amoo sañ-sañu laal ko ah man de Marie bul laal bàyyi grand man damaa nekk ci yoon de boy man fii man maa fi dëkk fii sama kër chef man damaa nekk ci yoon de yow waaw man dama doon romb man dëkkuma fi yow amoo loo wax da ngay déglu nga naa damay dama gën a yàqam di ñu ñu am service bu ñuy def da yow nga woo ko waaw am nga woo kenn ma kenn man damaa xamul yow yow bu dee homme de loi la doo muri lii ñu dégg mu muri muri rek ñu xool soxna si baal maa ko dégg baal maa ko baal maa ko baal maa ko dégg